waaw ñoom bi bu baax jom saa bu bu bu solo xam nga bu yëngu ci aar bu ko lool nag waaw daal mooy lool daal. ok Thiam bëggoon naa chance na wala chance. waaw Amadou Diome Sall nag. jàng na mais alxuraan la jàng waaw français bi nag dëgg fa yàlla maa ciy faj sama soxla en tout cas li ma ciy soxla daal maa ko ciy réglé techniquement nag quoi mais jànguma ko waaw. ñoom ci théâtre bi moom da ce da ce da koo bëgg rek maanaam dugg ci début bi quoi. dama bëggoon dama dama dama ci dugg noonu rek ko def ma ko woon métier et puis gaw ma ko woon quoi bëgg a feeñ moo ma ci dugaloon début bi benn grand bu tudd Seydou Pam xam nga moo ma gis ni ma bëggee àdduna bëgg tëb ak dal ak yooyu noonu xam nga ne joom yow daal foog ma def la artiste quoi damay tourner benn affaire naa la ci woo boobu 2000 2008 euh, lay doon xam naa quoi ay 2008 2007 2008 noonu daal laa duggee ci ci milieu théâtral moom ñuy wax milieu showbiz mais ba xam jom ci loolu rek moom mooy métier théâtre rek jom commerçant la waaw commerçant la maa ngi liggéey marché Kermel di jaay jën ak crevette xam nga maa ngi nuy nuyuwaale sama clients yi ñàkkul am na ñu ma ciy seetaan en plus maa ngi ubbi benn multi service Aliou Maam Diarra waaw di Euh, waaw am naa ci idole am naa ci Ndiaye Doos yal ko yàlla yërëm man moom mooy sama idole ci ci milieu bokk na ci li tax ma gën a jël affaire bi en charge quoi ko métier ma gëm ko aussi quoi te am ci yaakaar bu bëri jaay doos boobu ci la bokk moom mooy sama idole quoi. bëggoon naa xam Thione lan mooy sport préféré. waaw football la. football laa gën a bëgg ci sport yëpp. lan mooy sa équipe sama équipe bu weesoo nationale bu Sénégal bi uh-huh. am naa club. Euh, Barcelone. waaw. a euh, bëgg ci togg. moom cere laa gën a bëgg <laughs> ci togg yëpp. bëgg naa xam tamit ci jom ban année nga dugg nga ñëw intégré biir El Vision nan nga def ko dugg biir El Vision waaw El Vision Média du dugg dama bokk ci ñu ko sos. xullu am. yow gis nga yow kii eh kii war nga koo kii de. yow noppi ñëw ji doole nga sa morom yëpp a sañ. <laughs> comprendre nga parce que bi ñuy tëral lépp xam nga boobu yaakaar naa bi nekkul ñaar ñett la ñett lañ doon quoi ba toll kon dama am bu ya waaw euh, Diome gis na yow présentateur la ci Elvision Média hmm. mais euh, tamit da doon def di micro di dem di def ay émission et tout ça hmm. euh, naka nga def ba inspiration bi dugg la ba nga xamante bi ñuy tourné série bi di mooy mooy toosa noonu nga ñëw dugg ci série ndax commencement bi gis ci ok waaw série bi ni ma ci duggee sax boo xoolee benn jour dama ñëwoon seet si El këram fekk ngeen di tourné boobu amuloon benn góor bi ci doon joué ay jigéen rek ñoo ko doon def ci la ma woowee ne ma naa ñëw ñu ñu jël ma ci affaire bi quoi léegi bi ma joué ba pare ma sentir affaire bi jàll na quoi boobu teeguñ ko après ci laa ko woowee jour boobu laa ko ma maman sax euh, nee ko nag lii sawaay boo ko valoriser mën nañ cee am dara ko euh, te xale bu jigéen bi ma gis fii nii talent kese la boo ko jàppalee mun na am dara te booba léegi mu ngi ci tànk yooyu moom it quoi nekk na nit xam nga euh, ci laa duggee daal ci ci ci ci ci ci nooy mooy too sa noonu temps en temps des mu laaj ma sama xalaat donte moom moo géré lépp moom mooy def lépp ma jox ma jox ko sama xalaat xam na jël li mu am boole koog li ma am après ñu ñu ñu teg ko noonu lay doxee daal waaw mais moom ma ci dara ko wax dëgg fa yàlla tey ji nii tax na yàgg naa ci aar mais nit ñi xamuñu ma woon mais nii nii nii nii nii nit ñi commencé nañ ma xam ndax ndax ndax ndax ndax émission émission boobu mooy mooy sama. ca kaw asu loolu yow sa loxo ca kaw sa loxo ca kaw fecc bu bees fecc bu bees fecc bu bees fecc bu bees fecc bu am na naqari demee est-ce que ci boobu ni nooy mooy ko sama nga xamante ne ku ne

day ñëw teg caméra yi ba pare des fois dama koy wax sama yenn gars yi mais ay ay lañ koy jàppe te wóor na yàlla noonu lay noonu lay deme day ñëw teg caméra yi xam nga xool ñu ku ci nekk ne yow lii ak lii lii ak lii laa bëgg nga defal ma diw lii ak lii laa bëgg nga defal ma après ñu ñu dóor ko te bu jàllee bu génnee sax nit ñi xam nga loolu tamit euh, wax dëgg fa yàlla élage moom lañ koy teg quoi bu weesoo yàlla élage lañ koy teg parce tamit yombul quoi xëy rek dajale ay nit ay booy ne leen léegi lii laa bëgg ngeen def ñu def ko après bu ñu génnee ñu ngi apprécier ko seetaan ko xam nga ñëpp gis nañu vie di toll ak commentaire yi ñëpp ñu ngi koy xaar waaw daal noonu la demee quoi. <laughs> com bëgg naa xam lu tax yéen seen série bi ngeen di tourné bari woo parce que bu xalaatee ba xoolaat quatre jigéen la noonu noonu du six sax parce que boo xoolee métier boo gis wala liggéey boo gis ay nit du ko gérer rek dafa am lu mu laaj waaw léegi nag loolu mu laaj loolu nga koy jox amaana nooy mooy toosa noonu soxlawul personnage yi di bëri ay quelques nit rek la ñuy soxla mais léeg-léeg sax boo seetloo di nga am gis dañu gis nga gis benn benn ay benn benn ñu duggal ko am loo xamante ne day ñëw dugg am lu mu def après génnaat parce que li mu soxla moom ñu ko créé soxlawul personnage bu bëri quoi waaw mais nag yeneen yaa ngi ñëw peut-être loolu mun na ko soxla ji te boobaa bu ñëwee dañ koy gérandoo rek affaire yi moom yaatu na li ñu naan aar dafa yaatu euh, professionnel moom du du du si dara pour man quoi te ñun ay professionnel lañ ñoom bëgg naa tuuti nga dikkal ma ci sa relation ak ñi nga gis ne am na la sonal lan moo am seen diggante dafa am am lu dox seen diggante wàllu mbëggeel wala dara parce dafa mel ne tendance dafa nekk ci seen biir ñoom waaw balaa may tontu foofu damay tontu ci question bi bi nga njëkk a wax. mooy suñu diggante ñun ñuy nekk El Vision waaw boo gisee secret bi benn affaire la mooy ku ci nekk yaa ngi def li nga war a def te xaaroo ñu wax la ko xam nga ba pare xol yi doon benn parce que ku képp ku fay yëngu rek bëgg nga mbir mi jëm ci kan concurrence ne wu fa xam nga ay maa la sut lii maa la ëpp lii wala affaire yooyu yëpp amu ko vraiment nit ñi dañoo ñëw bokk ndey ak baay yalla mom mo xam di boole nak moko ko boole ay nit ñoo xamante ne peut-être dañoo yam jikko voilà mom mo tax affaire bi nice quoi te ñu ngi ñaan yalla yalla xeeb doli affaire yi gëna avancer avancé ñu gën a tamit bëggante suñu biir ñu gëna a jëm kanam wa mama mama mama mom bu may wax ci mom tay moy damay contane quoi parce que man may premier fansam pour man quoi mama ni muy def man dama ko apprécier artiste la ni mom mais euh, li muy def man dafa am lu ma ciy yëg côté art bi quoi waaw parce que benn da koo mën ñaar euh, dafa am don bi waaw maman bëgg def da koy def te après dafay jàll ak lu mu ko mënti defee nag mais day jàll quoi yow mi yow miy moom sax yow da ngay da maanaam daal léeg-léeg da dimbali sax ci yenn ci yenn ci yenn touche yi quoi nga koy mën a laal dafa firi

patat être bu sama sœur yi sama sœur yu jigéen yi day la gën a nduroog sax que man ah yalla moom moy def lolu xam nga léeg nga gis ay nit yu nduroo ba nga yaakaar ni sax am na ñu bokk peut-être am na ñu ñu bokk ñu xam ko wal ñu ñako xam mais nduróo ñu mom bo xolé sama famille sama famille sax la gën a sama tracti wal sama sama sœur yi wala sama sama sama sama frère yi que man ah. ki puissance mom sama soxna la waaw ah. sama soxna la Euh, maa ko woon waaw jawar la te kii ku ma dëggal la quoi voilà nit ku baax la loolu daal laa am lu may wax waaw man nag nooy mooy doo sa noonu ma gën a neex moy eh, wajoju ci bara xawma ku ko mama di xare mo wara ñibi ñibbi xam nga trahir ma man boo bokkoon naa ci sax trahir ma xam nga ne gaay européen bi lay xaar comprendre après mu ñew gisu gis waa bu bëgg a rasu quoi loolu ma way bu buñ koy tourner dañ ma génne salle bi parce que mënu mo won tok fofu quoi tellement ak affaire bi ni mu demee quoi mu jé génn salle bi dem sama yoon moments of Sunday. the the The the ah, waaw boobu daal moom mu gën a marqué ci ci nawet bi ma boobu moom ba léegi nii su ma wéetee des moom laay teg quoi dugg si waa ji rek nag foofu laay seetaan quoi su muy duggee xam nga <laughs> Isa di naan xoolal ci. <laughs> non loolu mënu loolu moom moo may daj man. waaw. kër boobu daal nañu jëriñ daal. ok ok Diop bëgg naa aussi tamit nga wax ma lan nga xamante ne moom nga déglu sa àdduna loo xamante ne ndox rek ci def nga xamante ne boo ko xalaatee rek yow doo ko gis sa àdduna ndax ak ban bi teg sa àdduna nga xamante ne boo ko xalaatee da ngay bëgg a dundaat ko ndax teg waaw waaw. loolu moom euh, mosuma ko wax fenn mais dinaa ko wax quoi mooy. Euh, sama sama cati ay, bunyi judu apa beram bunyi judu saya bisa cek ke orang direct beri kamu lagi ni ni ni ni apa mau mangke direct nak apa kamu ni war nak guru bok eh, mudraron ti nak terus kau perang mam jakarena ngomong-ngomong ne ko sama waay la léegi ma am lu ma métti jour parce que ñëpp yow xam nga li sa yaay soxla ngay ngay ngay taaw bu góor quoi te yow mënoo ko régler te sa rakk yëpp yaakaar ko ci yow yaa ko war a mën a dem régler ci affaire te yow gisoo ko xam nga xamoo nu ñu koy régler te mu ngi tëdd hôpital affaire boobu daal moom métti woon na ma trop léegi nag li ma gën a neex mooy ba tey ci même problème boobu la bi ma paa bi bi paa bi demee kees woo ma téléphone ma am nañu deret bi jour temps instant yi ñuy am deret bi mu ngi tolloon ci dernier jour yoo xamante ne ni bu ñu amuloon affaire bi mënoon a demee neneen quoi ko bi waxee paa bi woo am jour boobu daal laa gën a dund loo xamante jour boobu moom oto bi ma yéegoon kaar kaar Ndiaga Ndiaye laa yeewoo bi ma waxee bi ma waxee loolu dama dama jóg ñu ah xam nga nit ñëpp di ma xool quoi ama dama rus sax parce que dama abaale wàcc ba maa ngi war a wàcc wàcc si Kamba wàcc Fass Thiaré te fu ma waroon wàcc ndax yeggu yeggu gu ma quoi juum wàcc daal loolu daal ma gën a neex quoi voilà. waaw neex man li ma ma ci neex ci commentaire yi moo ëpp des fois li ma ciy naqare quoi kon loolu xam nga sant yàlla la des fois du ñàkk nag am ñu dugg am na ñu dundee mais ku nekk sa xel la ngay demee da ngay dawal compréhension quoi wala ñu bindal ko tamit ki ki nga sëkkal affaire bi xam nga du la neex waaw mais ñi apprécier comme ñoom ñoo ëpp ñi ñi ñi ñi ñi def noonu kontaan laa kontaante laa ci am quoi parce que boo xoolee série bi mu ngi def buzz buñ ko waxee buñ ko waxul donte daw ci télévision ci site internet lay daw mu ngi def buzz yoo xamante ni boo xamante ni nii yiy daw ci tele yi sax defuñu ko waaw sant yàlla la quoi voilà wax la ci dara loo xam na xam génn ñu may laaj maman <laughs> dëkkandoo ana maman affaire yooyu noonu maman moom dañ ma laaj waaw ak sama jawat ji xam nga <laughs> dañ ma koy laaj quoi. waaw ah. ah, célibataire laa de pour l'instant waaye bëgg naa am soxna nañ ma ñaanal waaye. yaa ngi ci tànk daal. waaw bëgg ko de bëgg ko trop. Wow, di bëggee mooy gars yi nga si internet bi lépp lu ñu dugal ñu visionné ko xam nga lépp lu ñu def tamit mu neex leen rawatina ñoo xamante ne ni aussi euh, mun naa leen jàppe ay fans quoi ñu may woo fu ne xam nga di ma encouragé sa yu affaire yu duggee après dañ may woo téléphone xam nga naan ay non tey moom lii mama tey def na lii wala jom wala puissance wala kaja affaire yooyu quoi wala pël bu rafet xam nga ñooñu maa ngi leen di remercier bu baax a baax parce que tamit yombul quoi nit buy jël téléphone am jël crédit am di la woo woo koo xamante ne mosu koo gis sax xam nga ci écran bi la koy gisee yàq ci moom crédit ak connexion ko aw ma amuñu ñooñu amuñu seeni fay quoi dañ leen di remercier bu baax baax waaw di remercier aussi e sama client yi xam nga ñi nga xamante ne damay jobando ak ñoom vraiment affaire bi commencé jall ba légui sa su ne dañ may wo di gëna jox courage affaire yooyu quoi ma ngi eh, eh, di gërëm di leen di leen sant di leen ne nak bu leen yàqamte affaire yi moom koor gi sax boo xolé def ñoo bet ñu jël kooru maman rek taxañ ko ci pour nooy mooy doo sa noonu parce que dafa war a continuer waaw ci yeneen i facette nag ci loo xamante ne ni mosoo leen ko gis waaw pare nañ ko te et puis aussi war na war na defaat bi boobu tamit euh, ñu ngi ji liggéey bu baax a baax xam nga yéen xaar waaw affaire bi daal ñun ak yéen la quoi ñoo bokk El dinaa ñëw nag ñaan ci ndewndeel yéen ñëpp laa yoo xam ne ku ci nekk dinaa la jël ci suuf <laughs> konte bi moom fag ma seet si ñëpp xam nga ànd ak ànd ak seen doomu ndey mama bu ko defee xam nga ngeen ngeen ngeen ngeen am lu ngeen def ak ñun rek mama parce mu ngi nii amul sax téléphone bu baax xam nga yéen a ngi seetaan quand <laughs> même ok ciao merci